mbokk waa Dakar People ñëpp ñuy suivre à travers partout dans le monde entier rawatina ci Dakar People tey nag dañoo ñëwoon tey fii ci Daaf côté Daaf. service seen benn mbokk mbokk policier mu di mbër ñu gën koo xam ci biir Fatou mbër ñu ngi lay siyaar. maa ngi leen nuyu leen ziar leen dara. di nuyu képp kuy suivre seen site Dakar People. Dakar def naa mooy capitale kon yéen capital bi yéen moom doy ngeen wax ne ay affaire yu garaaw ngeen di créé ay Dakar ay 221 fii dañuy wax ne waaw fi ngeen ma fekk mooy service social de la police nationale mu nekk service bu spécial service boo xam ne moom vraiment ñu bëri xamuñ ko mais nag am na fi vraiment mi ngi bokk cabinet DGPN lañ bokk directeur police lañ tataase wu mu nekk service boobu day nemmeeku ni ñi di dimbali ni ñi daal ci ñuy am ay jafe-jafe. mbër lu damay liir boobu ma xëyee man moom su ma xëyee. waaw stade la ak làmb. Ah. parce que man sportif laa su ma xëyee journal sportif laay gën a liir stade ak làmb. waaw waaw sport de defe naa sax actualité may gën a amal njëriñ ci sport bi la parce que li may yëngu ci la làmb ji mënumaa xëy awma journal làmb bi nga xam ne ni sax du ci laay informé wu ñëpp xam ko stade bi tamit actualité football bi moom bëgguma mooy échappé Astar tey dafa xëy fësal ci yéen kaayam mu ne mbirum Coupe d'Afrique bi ñu jëmmal 2019 Aliou Cissé de am na ñeenti mbiram ñeenti jookee yu mu am mooy kan Sadio Mané ak euh, Idrissa Gana Gueye Kalidou Koulibaly ak Edouard Mendy waa maanaam mooy le quator gagnant maanaam ñeenti kii daal. Euh, ñu gis nañu macha allah qualifié nañ te doo xool ñun ñoo jël premier. léegi ñun euh, ban kii nga mën a ñaax maanaam suñu président bon effectivement tey am nañ potentiel bi parce que boo xoolee suñu équipe bi ossature bi am na fi parce que lu gën a jafe am nañ ko tey ci àdduna bi mooy poste boo xool ci àdduna bi rek tey ci football am nañ fi benn élément clé tey ci àdduna bi première ligue ñoo fa gën milieu milieu récupérateur ñoo ko gën le défenseur le meilleur défenseur italien championnat ñoo ko moom Angleterre ka fay toj di toj ligue des champions bi tey ci ñun la bokk nga ñëwaat France deuxième meilleur gardien bi ñoo ko moom mais sant yàlla parce que ligne yooyu la football ay ligne la dafa am défense bi am milieu bi am attaque bi mais fu ne boo fa benn potentiel rek te ñun amuñ benn rek te boo nee Sadio Mané am Mbaye Diagne autour de lui am yeneen gars yi ak ñoom Moussa Konaté am nga attaque bu mën a defee ay jaaw qualité Balde ñu mën a détruire ay ñoom Ismaïla Sarr ah, am na ñoo dañuy jouer en profondeur mën a détruire benn défense nga ñëw ci défense bi nga am Koulibaly fi am Sané fële am Wagué ak yeneen gars yi am nga Barça moom duñ jël cuune loolu dañuy sant yàlla ñu xam ne tey am nañ équipe am nañ ay joueurs mais équipe nationale bu ñu koy defar dafa am sélection da ngay sélectionné ay joueurs yu baax mais li gën a am solo ci équipe nationale mooy xool comment composer une équipe mooy joueurs yi ma am nii ku nekk registre bi muy joué am rendement boobu Sadio ak Messi tey mën nga leen gis ñuy toj seen club bu ñu ñëwee équipe nationale eh, bi. ku mel ni Sadio tey boo xoolee li muy fubalee eh, Liverpool dañ koy jox ba mu nekk un électron libre pratiquement wala mu jugee ci flanc bi mais bu ñëwee da nga ko war a defal situation boobu pour mën la amal rendement ba ci war loolu quoi. foofu laa desandi ci ba léegi ci sport bi ndax ku ne Big Pato côté sport moom kenn mënu la caa seetlu wax nga ci sa biir wax jël nga exemple que Sadio Mané di koy comparé moom Messi seen jëf yi nag yooyu noonu man moom ñun ñu bëggoon a xam ndax ñun jotatu na coupe bi ñun ñu téegu suñu loxo ndax du dee du dee ay joueurs ñun am nañ ko kër gënuñoo taxaw. lan lan moo ñu manqué ba fi actuellement xam nga la moo ñu manqué management bu baax rek pour gérer situation bi boo xoolee coupe du monde bi bi bi bii passé nii li ñu tee def affaire bu ndaw mooy moo moo ñu moo moo ñu rey. mooy que ni bi ñuy ñëw xamoon nañu am na règlement bu bees ba am loolu yëpp da nga koy jël en compte aspect psychologique dafa baax préparer joueurs ci ay éventuels yu mel booy dem compétition mhm. daan nañ dem ba final. Mhm. jëluñ ko dem nañ fa quart de final tey am nañ potentiel boo xam jël nañ pied suñ qualification am nañ euh, euh, benn favori bu ñu jox. Hmm? tey lan mooy suñu avantage ñu am nañ ay joueurs yoo xam ne ñëpp ragal nañ leen bu buñ duggee téere boo ne Koulibaly laay taseet i Sadio Mané tey attaquant bi war a tasee Koulibaly mi ngi naan nan laay def ba romb ko défenseur bi jàkkaarloo Sadio Mané mi ngi naan tey ma dee déjà ah, c'est un avantage il faut savoir juste les galvaniser wan leen yéen tey am ngeen benn potentiel pour écrire seen nom dans l'histoire parce que Sénégal je crois que mosul jul Coupe d'Afrique nekkatuñu xale yooyu. je me d'Afrique bi bu ñu ko jëlu pour ñu jëlaat day jafe parce que xam nga football ay cycle la. cycle sax boo tollee ci benn période danga ci nga war a mën a jël yenn affaire mais boo la xasee ba romb rek da tollaat beneen cycle mooy di wàccaat. waaw tey il est temps tey ñu defar suñ sa préparation fa day metti gis li fa xew chaque jour ñoom laaj yu xam nañ ci dara Tunisie tamit gis la fa xewoon tey psychologiquement mais yaa en dehors aussi match bi ak avant match bi préparation bi da ci am solo je crois que bu ñëpp boolee tey def un ensemble et wàññi critique quoi ñuy wax objectivement ça sert à rien man Pathé Boye supporter sénégalais la ma taxaw fii di di nga di sànni ay xeer équipe bi ku nekk mën nga ci nekk mais il faut nga am potentiel bi mais bu ñu la sélectionné nag xamal li la tax a jóg bu sélectionneur bi aussi mu xam que ni lui il est pour tamit du la ko nga nekk entraîneur beneen nit jox la idée mooy tax nga loolu dafa am solo ci wàllu quoi il faut pas tey nga ñëw rek comme man policier la maa ngi bëree maa nekk service social di wax mais samay idée fan lay jógee ci ñeneen ñi parfois nit xool sama interview ne ma big pato tey li nga wax nangam mais bu subaa booy def defal lii loolu da ci am solo quoi collaboration boobu. nga baal ma tëggu ma nag contre Aliou Cissé capitaine bi ak El Hadj a ndax dañu bëgg ñëw di koy gën a yokk xalaat ak loolu te seen diggante naqaru mënul naqar ñoom ñoom mënuñoo bokk équipe def coupe du monde def coupe d'Afrique ba pare seen diggante naqar non ñoom ay gars la de man xam naa si dara dama leen di fréquenté ñoom ñëpp ñoo yem ñoo bokk ndey ñoo bokk baay affaire kii la rek xam nga dafa nekk gaynde ku bëgg Sénégal du ko nëbb tey El Hadj bu sañoon sax du mooy jiitu foofu lay waxee bu sañoon Aliou Cissé mooy mooy nekk meilleur joueur de la planète parce que loolu en occupé co-occupé de El Hadj moo nekk meilleur entraîneur d'Afrique loolu fierté El Hadj Diouf la comme Sadio Diouf Sadio Diouf sama xarit la ñuy toog di waxtaan parfois mais c'est des gens yoo xam ne dañuy bëgg jàppale Aliou Cissé pour mu gagner ñoom contre ñu ko au mag nekkoon capitaine c'est un leader moo xam ne lay utiliser affaire yi quoi ba ku nekk am ci dara. li nga wax lépp résumé nga ko journal sunu làmb dafa xëy tey mu fëtal ci ay mbir bu de mu ne booy Niang booy ñan ak Lac de Guiers bi ñëpp di xaar mu ne ah Lac de mu ne Boy Niang su ma ko dóoree ci suuf lañ koy jëlee loolu na waar mu ne moom dina xeex ba dugg boîte vocale ah dina doy waar de mu ne ah mu ne je fais partie des cinq meilleurs de ren waaw Lac mooy tagg foofu boppam mu ne ah beneen combat la ñuy dikkalaat ban combat la mooy Gris ak Reug Reug ah mu ne benn côté côté jamaa mu ne ce sera un combat feu et brûlant bu tàng jër lay doon tam métti waaw ki am am ku ne mu ne lan Gris dafa war a attaqué ak des côté Reug Reug doit préserver mu ñu ne Gris dafa war a xeex Reug Reug dafa war a bëre ba pare xaar mu am leneen lu ñu wonaat ca kaw mooy Khadim Gadiaga premier lutteur devenu président décret loolu am na solo Moussa Ndoye mii nga xam ne moo doon bëri largos war a dem ca France. Mm-hmm. loolu moo xëy gën a fës ci yéenekaay bi tey. yéenekaay ma xam ne foofu la ñu desandi ndax euh, li ko Olof Ndiaye di wax lañ ci lañ kii fii nii li bokkoon na ci li ma la bëgg a laaj dañuy ñëw d'abord ci euh, Boy a jàngate noo ko ñaari mbër yoo xam ne dañoo bokk style. Mm-hmm. mooy seen style ñoom duñ songu mbër. boo xoolee ak bërëm dalay xaar nga ñëw mu exploité booy ñaar dalay xaar nga ñëw exploité léegi man équation bi may wax mooy ñoom ñaar kan moo ci war a dem bi yoon loolu la Sénégal yëpp di xaar combat bi yëpp enjeu bi yëpp foofu la comme que ñaari mbër yu xaar la kan moo war a njëkk dem ñaar défenseur bu ñu tasee kan mooy dugal <laughs> loolu mu solo mais euh, dina am solo parce que tey ils sont obligés ñoom ñaar ñëpp ñu changer style ku ci bëgg a bëree sa morom di nga dem parce que ñoom ñaar mënuñoo taxaw xaar parce xaar te dañ leen fay xaar su bëri te Pikine nag booy ñaar du nekk feefam Lac de Guiers fekk si ko fa muy xaar parce que bëgguloo waa Pikine jéppi ko parce que combat bi examen de passage la pour Boy Niang moom moo bëggoon jàll ci cour des grands mu egg si kii jox ko sansam moom moo war a def exploit tey Lac de a il n'a rien na gagné pratiquement ci combat bi parce que bu gagné day confirmer que stade fi nekkoon parce que effectivement dafa nekkoon ci kaw ko daan Yékini amatoo looy prouvé ci arène boo Niang moom lu muy prouvé tey Boy Niang je crois tey moo am un défi à relever montrer aux gens que je suis capable d' intégrer ce cercle des VIP comme ni ñu koy waxee quoi. ci victoire la jógee waaw ci victoire la jógee mais nag combat bu doy waar man de mënu ma ci pronostic parce que ñaari mbër yu yaru lañ yu tee yu dal te duñ jaay seen combat vraiment combat bu neex la quoi. balaa ñuy euh, dañuy ñëw ci dañ dañ dëpp bi mu boobu it fisale ko. amateur Modou dina neex de. waaw xam nga mbër li ma waxoon benn tur dafa am làmb yoo xam ne yenn mbëram duñ duñ jig yenn mbër yi xam nga Balla Gaye jigul Modou Lo Eumeu Sène tamit en général moo combat Modou Lo moom boo xoolee da ciy sonn combat bi ñu bëri woon gis nga ni mu demee dafa metti woon lool lool lool si moom mais xëy na ak avantage psychologique bi mu am ni mooy la fait que tey il est devenu roi des arènes ça peut lui faire aussi des idées pour que mu xam ne tey il est temps que mu ñëw jaar ci Modou Lo mais du yomb parce que Modou Lo instant dafa jógee ci défaite bëgg ñëwaat rattrapé wu parce que waa parcelle dañ ko mere parce que ñëpp nee combat bu boog Balla Gaye xëy na ñu ko bëri neexu leen tey il va venir pour se rectifier avec un autre état d' mooy day ñëw nekk ku tey dal ne xaaral ma jaati waa ji nag pour gars yi ma parce que Modou Lo du ma la tey bu defee victoire ci làmb ji day ngandum exploit tey Balla Gaye daal Modou Lo daal la loolu affaire lay doon moo tax combat capital la ku yaakaar day yomb du yomb surtout que ñoom am nañ président bees tey Khadim Gadiaga bi nekkoon président éc euh, nekkoon ba tey ñu nekk président je crois que loolu day doon benn motivation si ñoom pour pour pour ñoom ñu gën a am xarañte daal waaw. waaw Reug ak kii mooy pon euh, combat ñee la ak combat gaynde xam nga giri moom ah giri doomu ñeere da nga koy ñaanal gudd fan waaye mais boo doo ko ñaan rëy ponkal mais yàlla may na ko mu am mobilité mu nekk mbër mu sawar parce que man am naa sens su bëreeg moom paas euh, contact nañ paas ma gis ko mbër mu sawar la poids buy déplacé la day naqaree manœuvre te dem na ba Japon prouvé fa dara ñëwaat Reug Reug moom kenn dootu ko présenté je crois que ci lutte simple bu dee bëre simple kese kese la bu ne tey jeexal na ko kon am na waajal mu wax mu ne kee xeex mooy avantage am kii bëri mais nag loolu mën na nekk danger ñoom ñaar mën nga yaakaar ne kii bëri mooy avantage am nga ñëw xeex bi nekk avantage am nga def contraire bi aussi. ñoom ñaar daal bu ci kenn bàyyi sama neen ku nekk la nga yaakaar ne moom nga def war a def pour daan nga def ko conseil yu bëri parfois moo lay yàqal ci làmb